Euh, bisimilla ci xibaar yi sagaar ngay xeeñ la ci jam ñaajo sud extension askan wa ñoo mobilisé wu euh, doon benn say fas yéene jàmmaloog promoteur bi di Diop Sy gannaaw bu mu duggee ci seen gox ba euh, dal di fay màbbal ay ay këri jàmbur loolu daal lañ wax du dëgg du yoon ba tax ñu sàkku si njiitu réew Macky Sall mu wax si wa ñoom daal ñu ko fajal seen bopp ndaje nag mu yaatu mu doon amal occasion la woon ci ñoom ñu daal di fësal mbooleem jafe-jafe yi nga xam ni seen gox bi mu ngi koy jànkonteel Moussa Ndaw moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib ñu ne jafe-jafe bi ci njëkk maanaam suuf ñuy saax-saaxe te ñu koy cëxatëxatee kiñ ci njëkk a ràññee mooy Diop Sy bi nga xam ne dafa ñëw mabal ay dëkk dëkk waayu jàmbur yi nga xam ne kenn xamul fu ñu jëlee xaalis daam ñu fiy jaar di di di di dagat kër yi rek te ñu koy def waa agent municipalité xàmmee nañ leen bu baax te defuñu ko lul seen njëriñ ak seen teraanga ak bopp ñu remarqué tamit ci loolu ne fii camion biir faral di tonni mbalit bi musu ñu gis ne fii làmp yaa ngi ngeen gis poto làmp yaa ngi benn bis tàkk guddi mu nekk kon donc fi nga xam ne bu guddee samba booy maanaam seen affaire day baax. beneen affaire bu ñu gis tamit mooy ne plan d'assainissement daf fi nasax ñu gis ne seen Sen'Eau dafa ñëw dugal ndox ñun ne tax nañ ñun taxuñu koo dugal maanaam ay HLM yi nga xam ne ña nga nekk le kenn dëkku fa xëy na bàyyi maa fa dëkk lañ yóbbuloon ndox mi maanaam li ñi xëy di jëndi ndox ci anam yu ñaaw ñu gis ne bu tawee moom. fii moo raw àdduna bu tukki doo dugg doo génn boo amee malade moom fa lay dee. marché amu fi. poste de santé de proximité moo fi am maanaam poste de santé bu jegee bi nga xam ne tey boo amee malaat mën fa dem ñu defal ko les premiers soin tey fii ku fi génn àdduna yàlla yéex mais mënul ñàkk dañu nar a jiggaat di la yóbbu faneen te fii jam ñaajo ak tur bi li muy réeree amul cimetière. jafe-jafe yooyu yëpp ñu dund moom lañu bëgg nag mu dakk moo tax ñu ne dañoo bëgg. këri jàmbur yi mu jël mu delloo ko ñi mu toj seen alal mu fay leen. mu nga ko loolu ay kàddu yoo xam ne ñu ko nangoo ci kii di Moussa Ndaw Goño Kajoor ak Goño Bambara di ñaari gox yoo xam ne ña nga nekkee fële euh, lañu ñu xëy rek gis ay nit euh, dugg ci seen àll ba di fa samp ay bornu euh, seen suuf si ngir dundal seen jur yi njiital réew Macky Sall lañu sàkk mu dugal ci loxoom wa ilaa kitaabu nañ bakkan dina root kon ci seen diwaan boobu lee Assane Sow mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbi noonu nag foofu ñaari village la village Goñ Kajoor ak Goñ Bambara dañu am benn problème suuf problème bi nag dañu xëy fekk ñu samp ay borne ci suñu àll yëpp bay wuñu dara te noonu foofu lañu fàttalikoo ci dégg si ci jëlee suñuy maam ba ci suñu ba ci foofu lañu am amuñu salaire amuñu leneen lu dul foofu foofu bañ ko jëlee noonu de na nañ rey nañu te noonu duñu nangu loolu tey donc nangu eh, tey donc nangu ëllëg dañu bëgg bay suñu àll tout tranquillement ki ko samp nag dañu bëgg mu bay sunu àll su fekkee buggul bakkan rot foofu président Macky Sall la ñu waxal nag yow président la ñuy waxal dañu bëgg nga wax ci sunu problème bii soo ci waxul ay bakkan du benn bakkan ay bakkan ñooy tëdd te balaa loolu am nag dañu bëgg a nga wax si dem nañ si fi ñu war a dem yëpp Nimzaat fa la ñu jëm di benn dëkk boo xam ne nekk foofee ci diwaanu Sédhiou askan ñoom it xamuñu luy dund di saf ndax ñàkkum courant gi ñuy dund seen dëkk bi diir bi ñu ko sancee léegi amul benn poto lampe boo xam ne mos na faa taxawu te moo ne day fil yaa ngi leen romb ah, mbaam gàtt na waaye ci jur ji la bokk du góor du jigéen du mag ndaw ñoom ñëpp ñoo maas wàcc mbedd mi ah, takk ay sagar yu xonq tur di sàkku ci njiital réew Macky Sall mu jubbanti institution bi defu ko lépp lu mu gis na xam ne ne ñoom Fatou Diop moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Lamine Bayo taal euh, kii bii nii dañoo sonn jigéen ñi sonn nañ xale yi sonn nañ paa yi sonn nañ dañoo yàgg fii di jooy courant ay ñaar fanweeri at def nañ lu ne dugg nañ fëgg nañ poste yëpp amuñ kenn ku ñu bii léegi nag ñu ne xaar nag ñu seet ñu def défilé boo xam bu fekkee ne sotti wuy tamit am na leneen li ñuy def parce que fii dañoo sonn ñu téléphone yu baax parce que dañuy dem di charger bu weeru ko jotee fii même bu nekkul weeru ko ji glace yi ñuy jënd ci glace fii boo ko xoolee ëpp na million parce que koor gi nekk li ngay jënd ci glace bëri na doo am glace bu baax tamit doo am ndox bu baax Nimzat mu dimbale ñu dimbale Nimzat dimbale population yi ñërëm xale yi xale nañu fi mu ni bu ñuy jàng letoo dangay taal sondeel ak léegi fi mu nekk ni pétrole amul sondeel la taal sondeel boo ko xale mën naa am mu daanu mu lakk léegi sonn nañ nguur gi nañu dimbale bu ñu dimbale ñoom ñu toujours nii la ñuy bëgg di def fi mu nekk nii daal moom fi mu nekk nii dañoo jël décision dañoo sës bu pare dañoo sës ñoo seet ne dañ ñoo yàq parce que mooy eh, eh, eh, tension yi am na waaw moyenne tension yi am na am yoo xam ne fi ñu néegu ci kaw kaw kaw ñoo gi nit ñi lañ jàll loolu xam nga danger la léegi ñun bañ ñoo wàccil loolu daal moom moom jaaxal nañu te am na ay yu fi juróom xamuñ ku ko moom moomuñu ko parce que waxuñu dara te dañ koo jóor léegi nag fi nekk ni ñu jaax fi nekk ni dañoo sonn ñeneen ñu wàcc ci mbedd mi daal di fesal seen ñëgg ñu ko xool ñoom ñu askan degee dëkkee fële ca Grand Mbour du góor du jigéen du mag du ndaw ñëpp ñoo maas wàcc ci mbedd mi takk ay sagar yoo xonk cuur di sàkku ñu jëmmal leen ak de police canalisation yi ñu defaraat ko waaye tamit seen yoon wi nga xam ne nii daanaka mooy seen route principale bi ñu goudron leen ko dañuy dem ca Grand Mbour fekk fa Thierno Daf waxoon nañ ko sàmmonte nañu ak seeni kàddu askan wi yeewoo ci diiwaanu Grand Mbour mujje nañu amal seeni doxu ñaxtu commencé nañ dox ñaxtu bi te dañ koy continuer tant que defaraloon ko chaque week ñoo ngi fii di xeex te képp ko mën ñëw ànd ak ñu xeex bi ñu ngi lay dinañ xeex ba ñu defaral ñu tali bi waaw franchement sonn nañ trop. si ana lan moo waral doxu ñaxtu wi faram gi ak askan wi yeewoo ci diwaanu Grand Mbour. sonn nañu tàyyu nañu bëgg nañ tamit ñu am benn police de proximité parce que ñuy mën di dox ci dëkk bi heure bu ñu neexee am kaaraange dañuy dox ci dëkk bi wóorul dafa lëndëm bu 10 heures jot rek dootoo sañ a génn loo soxla doo mën a génn dem. lëndëm gi soxla nañ tamit ñu defaral ñu ay lamp ndax Grand Mbour dafa lëndëm te dafa waroon bokk ci gox yi gënoon a leer ci Mbour ndaxte hôpital bi fii la nekkee te lu bëree bëri fii lañ nekkee bëgg nañ tamit am ay canal pour euh, ndox yi comme par exemple taw bi wala ndox yu bon amul fu ñuy jaar ndox yi dafay taa yooyu sonal ñu weñ yi sonal ñu lépp sonal ñu ñoom askan wi nee nañu leneen li ñu bëgg moo di ñu ñuul yoon wi xàppati seen diiwaan gi ci kanam ak ci ginnaaw te loolu ñu def ko nu mu gën a gaawe mënatuñoo sol yére bu baax suñuy poussière bi day dugg ba suñu biir armoire suñu kër yi kenn mënatu koo bale kenn mënatu koo fobeere ba mu set sonn nañu tàyyi nañu ñun jigéen ñi ñun ñi des ci kër dañoo bëggoon ñu dëmbali ñu defaralal ñu tali ñu ñuulalal ñu ko Grand Mbour bokk na ci diiwaan yi gën a mag bu dul sax bi gën a mag ci quartier yi nekk ci biir capitale Petite Côte bi Mbour Thierno Daaf Walfadjri. jaajëf Thierno Daff ñu ngi lay sant di gërëm ñuy wax ci wàllu politique ak loo ñu nemee ko ci militant ak responsable parti politique yi bokk gis-gis nekk foofu ci foofu ci diwaan Touba li ko la nag moo di Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké mi ñu ne mooy seen mbër ci bopp ci bopp conseil départemental bu Mbacké lenn ci militant ak responsable parti bi jokkoon daal di weddi lu ne mel muy Pape Diop di kuréel gi ngànk parti bi amul kenn si ñoom ko tànn Abdou du Dolly Mbacké ngir mu doon seen mbër euh, convergence bokk gis-gis gën di yaatal ay bànqaasam ci diwaan Touba euh, gannaaw bu mu doon dalal ay militant yoo xam ne euh, ñu ngi bokkee woon euh, ci réewum bu Idrissa Seck dañuy dem ci diwaanu Touba fekk fa Modou Matar Sarr. xaajaloo gu métti ñu nemmeeku ko ci parti bokk gis-gis bu Touba gannaaw ba ay responsable ak militant tabbe Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ngir mu nekk seen candidat ci conseil départemental bu Mbacké ñenn ci ay responsable jóg nañ ŋaññi li ni mel nee nañu kat parti bi tabagul benn candidat. parti bi tànnagul kenn président Pape Diop mooy jël décision finale wala bureau exécutif bi nekk euh, ci parti bi. candidat bu fi président Pape Diop teg tànn ko ci turu suñu parti bokk gis-gis dinañ ko jàppale ba mu am ndam. jotaguma benn message. benn confirmation ci diw la ñuy tànn wa ilaa coalition dangam lu may xam comité directeur lay bay ko bu leen kenn dox ci seen maayin. ñoom responsable ak militant yu bokk gis-gis yi dolli nañ ci ne saa su ne ab du Bara Dolly Mbacké day aaki moo ngañaay loo xam ne ñëpp a ko liggéey li ni mel nag dootuñu ko nangu benn yoon. Pape Diop moom la nit ñi tànn. moo tax maanaam ngay dem élection di gagné. dafa am ñoo xamante ne bi toujours dañuy wax ne ndam bu amee rek ñu jël ko ne ñoom ñoo gagné te askan wi ñun ci terrain bi la ñu nekk. ndam ka ginaar du toppi kuy taxani te gis ku jëm ca wala ndoowa. déclaration bi ñoom responsable bokk gis-gis yi ñu ngi ko amal ci ndaje moo xamante ne dañ doon dalal ay militants yu fàqi ko réew mi bu sa Seck wuutal si bokk gis-gis bu Papa Diop. ñoo ngi wan ci Idrissa Seck mu war na moo tax ren ma ni leen Papa Diop lañ fas yéene àndal. lim nu wooree dafa ñëw fii ci tuuba wax na nañu PDS demul te Macky Sall mii mënut a yor réew mi bam mu ba mu léegi léegi tegut fi tànkam. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri bu dee nag ñi nga xam ñoo ànd ak kii di eh, Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké ñoom ñu ngi wax ni ñi wax ni daanaka dañoo xamul dara ci wàllu ko politique du Pape Diop moo leen di tànnal ab candidat waaye ñoom militants yi kon ñooy koy tànnal seen bopp ci tànn nañ Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké su ko defee ah, mu doon seen mbër ci élection conseil départemental yi ñuy dëgmal ah, Gallo Niang moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Mourou Makhtar Sarr Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mooy suñu candidat ci élection départementale yi nga xam ne moom lañ jëm ñi wax ne parti bi investiragul tabagul kenn dañoo xamul base bi ñoo tabb Cheikh Abdou parti du joge ca kaw di wàcc suuf mais day émanant de la base vers le some ku ko xamul politique mooy wax loolu nit nag boo nekkee ci parti politique da ngaa war a respecter les directive du parti mënuñoo accepter ay nit wala ku mën a doon nga ñëw di andi andi ay wax ces gens la soi-disant qui contestent moi je ne les vois pas sur le terrain ils sont presque inexistants ou bien c'est des gens qui ont été marionnés et qui ont également payés manipulés par le parti au pour venir détruire certainement notre coalition opposition yëpp ubbil nañ leen bunt yeneen association yëpp ubbil nañ leen bunt daayira yeeg Pastef ak ñëpp ku mën a doon rek exclure la gis ne leen jigéenu Touba yi ñoom ñëpp dañoo sonn ku leen jàppale ñu jël Touba amul benn infrastructure boo xamante ni jigéen ñi dañ ci bay seen waar. jot na nag ñu am benn leader boo xam spécial lay doon ngir taxaw jigéeni Touba ci loolu. am nañ ci rafet njort ci kan si Abdou Mbacke Bara Dolly ndax ab taxawaayam ki ni mu taxawee assemblée nationale te poosu boppam taxul mu taxaw fa. suñu candidat kenn rek la ma sa doon ci dëkk bi muy Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly bam ne moom la ba tey wecc ko wuñ ko saase wuñ ko fu ñu toll lu ko yëkkati ci la ñuy nekk lu ko doylu ci la ñuy nekk lu mu bëgg ci la ñuy nekk. diwaanu Kédougou dala hôpital bu bees tàq ubbite gi démb ci altine ji dañ ko doon amal ci teewaayu njiital réew mi Macky Sall ci ay kàddo moom njiital réew mi professeur Sikon ah, daal di tontu opposition di wax ne mbooleem digg yi mu fi mos a diggee defu si dara dañuy dem ci diwaanu Kédougou fekk fa Souli Bourama Dabo. ay boor 15h30 le président ak délégation agsi fii ci région Kédougou étape bu njëkk bi nag mooy commune bu Tomboronkoto foofu nag jot nañ lancé travaux yi bu PUDC ensuite demoon nañu nemee ko nag station de traitement ndox mi ginnaaw ndox mi bokk na ci ay jafe-jafe yu askan bi jànkonteel fii ci région Kédougou irrigé nañu tamit yoon mata mooy yoon boo xamante nag yàgg nañu ko jooytu ci le président ak délégation jàpp yoon funguli mi nag dem ba commune bu njir ino inauguré centre hospitalier Amath Dansokho te mbokk ci hôpitaux yi yi gën a moderne. j'ai voulu à travers cette structure sanitaire. Kédougou dalloo na ak euh, hôpital bu bees bu dëppoog jamono boo xamante ne dina def lu ëpp ci téeméer ak juróom fukk ci ay lal waaye tamit dajale lu ëpp ci fukk ak juróom ci ay services yoo xamante ne benn du ci bokk ak moromam lu muy faj ak barabu fajukaay bi yëpp dina tax léegi Kédougou dina bokk ci carte sanitaire bu Sénégal. un accès à des soins diversifiés et de meilleure qualité. na lan nag waa opposition di leen wax ni daal lu ñu fi ñaan yépp moo di daal projet yi bañ a ànd. j'ai organisé le conseil des ministres. ba ma fii ci Kédougou bëri woon na ay nit yoo xamante ne xamuñu fi ñu teg seen tànk maanaam woddoo seen làmmañ naan njiitu réew mi nekk ministre di digle léegi nag wedd gi bokk ci askanu Kédougou ci boppam ñoom mën nañoo indi ay seede ndax léegi gis ngeen li man fi def ginnaaw ba ñu fi jëmmalee ay jumtukaay yu ama am solo yoo xamante ne dañ koy inauguré ni ki tey jii. inauguré aujourd'hui. Kédougou Sylvain Dabo Assane Sané pour la radio télévision jaajëf Soly Ibrahima Dabo ñu ngi lay sant di la gërëm jiital réew Macky Sall kon gannaaw bu mu jógee fële ci diwaanu Kédougou ñu ngi koy seen ci bésu tey jile fële nga xam moo di ca diwaanu Kaolack waaye démb nag eh, ci jamono ji xam ne ni eh, ci la doon def Kaffrine eh, ci la doon dem Kaffrine kon jot naa amal escale fële ca Koungheul gannaaw ba nga xam ni responsable politique bi di El Hadji Momar Dieng dafa wane ak mobilisation gu am solo Alassane Ba teewoon na ca ñu teewlu ko ci reportage tukkib njiitu réew mi ci diwaan yu nekkee ci biir Sénégal mu tànn ci digg réew mi ak ñi féetee ca penku waral ku nekk ci responsable yi bëgg a wone sa doole ci wàllu mobilisation muy ñi bokk APR wala ñi bokk ci mouvance présidentielle bi kile di El Hadj Momar Dieng ca kër Serigne Jabel digganteem ak Koungheul di ay kilomètres yu néew la dajale mboole militant yu baam Bambouk mbooloo mu takkoo takku googu sax a tax njiitu réew mi Macky sàll ba mu fay jaar daal di taxaw ci lu toll ay simili ngir wone yëg ko yëg waaye bi yëkkatiwaale ay kàddu jagleel ko responsable bile nga xamante ni si ron naaj wu tàng wu ñuy dund ci tund wi la ko lu ëpp ay junni junni militant xaar lu ëpp juróom-benn waxtu ngir gàttandu njiitu réew mi Macky Sall ca anam yamu gënee waaye tamit won yeneen responsable yu féete ci diiwaan bi doole El Hadji Momad Dieng mi nga xamante ni lépp mu ngi ko tegoon ci loxo doomam bii di Babou Dieng. Koungheul Alhassane Ba Yaya Guissé Walfadjri jaajëf Alhassane Ba ñu ngi lay sant di lay gërëm xibaar rek ci tënk mbir Baye Modou Fall ñu gën koy xam ci Boy Djiné maître Abdoulaye Babou bokkoon ci wokkaay yi koy layil ah, ci ay jamono kon ma ngay ñaawlu doomu adama yi nga xam ne moom la ñuy jël rek tëj leen ci kaso bi fàtte leen ndax liñ leen tuuma daal faat bakkan loolu dafa jàppandi lu dëgg du yoon nit ñi daal dañ leen war a su ko defee ñu xam fu ñu féete encore joual nag benn yoon ah, la nga xam ne Boy Djiné def na ko kàddu maître Abdoulaye Babou yi incha allah rabbi ah, dañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen i jotaayu xibaar askan wa dëkkee ca Par Cissé di benn gox bu nekkee ca commune Mbédiène nekk ci diwaanu Louga euh, jafe-jafe yi ñu doon jànkonteel ci wàllu ndox nañ jàpp tey ji wàññi na euh, FADEC di fédération des associations de développement euh, ci lëkkaloog benn ONG bu fekk baax ci Espagne ñoo leen baaxee ab forage bu bees tàq dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Omar Kayre ci lëkkaloo gu mu am ak ONG Solidarité Internationale FADEC nord ci financement gouvernement autonome bu Valence daal di tabaxal dëkk bi di Par Cissé bokk ci commune bi bu Mbéjéen ci département bu Louga ab forage njëg gi nag toll ci juróom fukki millions ci sunu xaalis. boo koy expliqué damaa juróomi camion bu nekk def 10 mètres cube nga boole def ko ci ndox mi fi mu koy xeeb xeeb yaatu na. baag bi koy root mën na génne ba 30 mètres cube non seulement ndox mu bari la mais ndox mu neex la ndox mu laab la amul xorom amul fer amul leneen. bëgg-bëgg bi ci forage bi du lenn lu dul waa dëkk bi mën di yëngatu ci wàllum mbay ak càmm bu ñu sukkandikoo ci Mactar Ndiaye. Eh, li ñuy wax maîtrise de l'eau ça c'est important dafa am solo maîtrise de l'eau maanaam. yaay indi sa nawet bu la neexee yaay sa noor bu la neexee yaay xool li ngay ji yaay xool li nga ko bëgg nga def ko. et tant que ñun demuñu foofu ba sori euh, développement dana nu jafe mais mën nañu def noo xam ne daañu wàññi mbay mi àll bi dundaat. te itam nuy bay noor di bay nawet. ngir nag forage bi mën a jur njariñ yi nga xam ne moom lañ ciy xaar comité de gestion bi nga xam ne sax moo ko war a yore dañ ko formé président bi sax ne ñoom noppi nañu ngir yore ko comme ni mu waree. lan mooy rôle secrétaire lan mooy rôle trésorier ah conducteur bi nan lay doxalee maanaam surveillant yi nan la ñuy doxalee seen liggéey loolu lépp nag bu fekkee ku nekk da gëm lañu lay jàngal te saytu ko incha allah moom jaakaar naa ca kaw ca kanam projet bi nag namm naa tabax yeneen ñetti forage ginnaaw bu Paar bi meeru Mbéjéen bi ak sous bu arrondissement bi di rafetlu doxalin bu nu mel di woo tamit bon volonté yi ñu mën a roy ci exemple yu nu mel la Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ngir yaatal liggéeyam fexe ba produit bi muy taxawal ko ñëpp jot ci promobile xaatim na ab dëppoo dox ci ma ak waa MSD di mouvement Sénégal pour le développement lu jëm sax ci dëppoo googule ak solo si nga xam ne am na ko Serigne Makhtar Mbacke moom la ñu toftal ci njiital Sirius Télécom Afrique indi na ciy leeral ñu teewlu ko ci micro xoxandoo. tey xam ngeen ne bis bu mag la parce que dafa doonoon bis boo xam ne dafa doon marqué euh, signature bu ñu doon am euh, waa MSD. Euh, mouvement sénégalais pour le développement ak plateforme paysanne. mu doon nag partenariat boo xam ne partenariat bu bu naturel la parce que dafa doon ñaari société yoo xam ne ay sénégalais ñoo ko defar euh, xarañte sénégalais moo ci dem euh, lu ñu fi liggéey ak lu fi ruus tamit yem ci sénégalais yi. mu nekk orientation bu bees boo xam ne dañ ko fas yéene di def ak ak ak mboolem groupement yi nekk fii rawatina nag groupement paysan bi ndax plateforme paysan ku ko wax lu ëpp ci majorité bi yëpp. Euh, Serigne Moustapha moo ko jiite mooy MSD kon tey bis la boo xam ne euh, bisu bisu mbégte la bisu orientation bu bees la ci liggéey yi ñu war a def ak ñoom ànd au point de vue social et économique et développement ànd ceeg ñoom moo tax njariñ loolu xaj na bu ñu àndeek ñoom dana tax mu gën a mën a tas ci gox goxaan yi dana mën a tax ñoom xale yi nga xam ne wax na ko léegi ñi ngi nekk ak ñoom xale yi mën cee am ay liggéey xale yi man cee man cee gën a gis seen bopp euh, ndax defe naa ne loolu lu ñuy wax lu nekk tey ji li gën a ëpp solo loolu la problème de l'emploi ce problème boobu état rek moomu ko mm-hmm. ñi ko gën a moom gën ko mën a mën a def defe naa ne mooy société privée yi mooy groupement privé yi ku mel ne moom bu njëkkoon baatu anniversaire buñ ko mosaane dégg rek ci tubaab yi la waaye tey ji nag muy ndaw ñi ak lenn ci mag ñi dañ cee sóobu ak doole ba ku ci anniversaire boo ko defarul statut mbaa nga yónnee ko am message fa lay jaaree mere la ba faw am na si ñooñ événement lañ ko def ba xaalis bu bare bari lañ ciy fal di dugal yóbbee lenn ci ndaw di koy ñaawlu ndax benn at bu wàññeeku ci say dund jarte feete waaye dañ cee war a toroxlu delloo suñu bopp ci yàlla Toussaint Senghor Ibou Gueye reportage benn gabonais moom jàpp na ne anniversaire dañ kaa war a def ngir delloo njukkal ki nga xam ne mooy suñu borom. anniversaire nag bés bu symbolique la si ñun bés la boo xamee ne dañ ci euh, faral di sant bu baax a baax waaye it di ci waaye it di ko bokk ak sunay xarit ñu koy feete waaye di ko bokk su sunay xarit ñu koy feete rek loolu loolu dong la. Cheikhouna moom jàpp na ne anniversaire léegi dafa bëri mbumbaay. léegi dama gis ne anniversaire xew la genre mariage la parce boo leen euh, deful statut sax des fois dañ lay mere ba ci góor ñi am na ci ñenn ñoo xamante ni si sax boo leen deful euh, statut dañ lay mere. Fatou itam jàpp na ne xaalis boobu ñuy yàq xejoon na feneen wala sax ñu jox ko suñuy waajur. non am na ñu koy def sérieusement dëgg la mais man je ne suis pas dans ça parce que je pense que xaalis bi ngay jël di koy yàq ci anniversaire yi tout am na fu mu xaj personnellement parce que mën nga ko jël dugal ko feneen soit dans na la rapporter xaalis